di leen wax ni mënuñu woon tàmbale waat te tàmbale wuñu ñi nga xam ni ñoom la ñuy àndal tey di orchestre Baobab euh, c'est euh, le doyen des groupes sénégalais fu ñu toll nii ñoom ñëpp euh, ñi ngeek fi man ci ci plateau bi waaye ni ngeen koy seetloo ci kanam tuuti duñu ñoom ñooy joué tey ñeneen ñooy joué seen i morceau ni leen ko wan ci kanam tuuti te di ngeen ci xam dara orchestre Baobab lu ëpp juróom fukki yaat mu nekk Sénégal dans les années soixante-dix lañ ko lancé ñu ko sosoon am na ñu fi ne ba léegi am na ñu jiitu euh, am na ñu nekkaat ci leneen euh, orchestre boo xam ne la trajectoire am c'est toute une histoire euh, ngir waxtaanee ko tey ci plateau bi maa muntaga Mountaga Koita salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay dalal jàmm yow yaa ci groupe ba léegi drums percu. waaw ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi. di wax alhamdulillahi rabbil alamin Baobab man maa fa adhéré en ba fi ñu toll nii hmm. donc jaar-jaaru orchestre bi yëpp man dama ko fekkee hmm. dama ci bokk waaw tey nag am naa kontante am naa bànneex toog ci plateau bi wax ci ñooñu nga xam ne ñoo fi nekkoon démb nekk ay mag nekk ay kilifa nekk ñu yàlla may ci musique bi ñu correct ñu xam li ñu bëgg yàlla yóbbu leen man maa ngi leen di rendre hommage bu baax a baax a baax yàlla na leen yàlla xare àjjana ñoom ñëpp amiin waaye tey nag dañu ñëw pour waxtaan seek su ñu am di jàmm yeeg suñu xarit yeeg ñi nga xam ne tamit dañu topp boobu ba léegi am na ay nit yoo nga xam ne ñu topp ànd ak ñun ba ñu yegg si fii tey ñu ànd ak yow ci plateau bi ak sa frère Thierno Kouyaté Saxo. waaw Thierno ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay delloo nuyoo. Euh, di kontaan ci plateau bi yegg si fii euh, man nag j'ai pris le train en marche parce que booba bi ñu commencé maa ngi dëkkoon nag sama frère Issa Sissoko donc li ñu doon def yëpp li booba amoon na sax ay période ñoo xam ni doon naa dem di ko remplacer jouer à sa place après delluwaat mais teewul yu bokkul yow alto moom ténor alto la yooye moom mu yore woon ténor mais xam nga relativité bi am ci entre ténor ak alto soo mënee jouer am mënu la mënu la mënu la empêcher nga mën a nga mën a jouer quoi waaw donc voilà léegi nag yaa ngi koy tudd moom euh, si Cissokho hmm. ñu koy euh, ñaanal bu baax. waaw mais rakam mi ngi fii ci groupe bi Moussa. Moussa Moussa mu nekk nii Moussa Cissokho waaw maa ngi leen di nuyu di leen di fay waaw ma rakam laa Moussa Cissokho bon comme ni mu ko waxee rek Thierno Mountaga ñun ñëpp ñoo nekkoon benn kër. ñoom Issa di répété say ñu nit ñi dem suñu répétition à Rio orchestre yooyu. boom bu ñu ñëwee topp nag di déglu ñoom li ñuy tëgg boole ko wax li ñuy tëgg noonu la ñu demee nag ñu nekkee nekkee noonu nag man ba ma bàyyi leen fii nag dem bitim réew bon jaar hmm. Abidjan jóge Abidjan nekk Europe joué star yi nekk foofu yëpp euh, ñu ngi dégg Touré Kunda Mori Kanté Salif Keita Mani Dibango ñun ñëpp après ma dellu si sama fere yi nag ñoo ma ne yàgg nga bitim àll il faut nga jege suñu fii nag léegi nekkax ñun bon depuis boobu nag euh, bon maa ngi seen wet nag ça fait léegi presque. yaa ngi ci biir yaa ngi ci percu yi. waaw un an et demi déjà waaw maa ngi wax ñoom nag léegi. jërëjëf Moussa. Euh, keneen ko xam ni tam ci musique Sénégal euh, xàmmee ngeen ko ràññee ngeen ko Yaxya Fall Yaxya guitare ñu ngi lay nuyu Yaxya di la dalal jàmm. maa ngi lay fay di di Euh, bisimilah public bi nga xam ne dañu ñëw tey pour euh, déglu suñu mais au-delà de ça sax xam naa ne après lii tey jii émission bu ñuy jaarale pour euh, Sénégal au la même de Sénégal nit ñi xam exactement l'existence du Baba man maa ngi tudd Yahya Fall présentement comme ni ko Thierno waxee léegi ne il a pris le train en marche comme man moo aussi j'ai pris le train en marche parce que moom mi ngi woon ci ñun après mu demaat ci beneen orchestre bu ñuy wax Sahel man maa ngi nekkoon star band number one temps yooyu sax dañu xawoon créer benn espèce. mais mais star band ñi fa jóge woon beddeeku ñoom ñoo sos orchestre Baobab. waaw ñu ci cest à hmm. su su la bëggee ma expliquer leen brièvement. Hmm. star band espèce su école la woon moom la d'ailleurs sax Ibra Kassé feu Ibra Kassé bindoon ci kii bi dafa nekk euh, faculté de de moo la defoon ci tableau bi. ko bindoon euh, Miami. Miami tous les grands musiciens yi ngay dégg fii tey mag ñëpp foofu la ñu soqeekoo donc ñoom dañu jóge foofu dem créer Baobab ñun ñu ñëw jógewaat foofu dem créer Number One alors ñu créer benn espèce su concurrence pas de loyal loyal la parce que nit ñu ci bari dañ daan ku nekk danga am koy far mais ñun suñu biir on est on est on a toujours été des amis ay xarit la ñu mës a nekk. dañu demlante Thierno ngi Mountaga ngi nii yàlla loolu la dogal suñu diggante. Hmm. mais daal en en en très simple euh, bi ma dugg see ci dellu see ci ñëwee ci Baobab ah dañ ma ci woo def naa ci à peu près presque vingt ans ñu ngi nekk ensemble. Hmm. et je crois que c'est vingt ans de bonheur et de joie de complicité moo nekk suñu diggante ñun ñii. Hmm. ñun mag ñi wax dëgg yàlla ah. maa ngi da nga da nga jógee groupe kàggu dem orchestre booba wala diggante bi am na ci leneen loo nekkoon. pour dugal kàggu parce que kàggu c'est Kiné Lam. attention. oui waaw parce que kàggu man def naa groupe yooyu yëpp. Hmm. ay kàggu te tout parce que album Kiné Lam yi s'est passé avec moi ak ñoom Cheikh Tidiane mais number one Thierno mi dafa jógee Star Band. dem Sahel ñu jëlee ko man ma jëm ñu récupéré ko yóbbu ko number one yaa ngi dégg fekk na boobu mu jaar Baobab ba pare parce que il était chez il son son grand frère Issa Sissoko mooy seen mag ñoom ñëpp foofu la nekkoon daan dem di remplacer Issa Sissoko de temps en temps ba xam seen répertoire mais terewul mu ngi daan jouer Miami parce que premier albumu euh, Star Band Thierno mii moo ko moo ko moo ko joué moo moo ci def arrangement yi. orchestra Baobab c'est une histoire instant bi yéen a ngi ciy ànd ak euh, seeni doom Alpha Dieng est doomu Ndiouga Dieng Alpha ñu ngi lay nuyu. Euh, Babacar maa ngi lay fay bu baax. am mbégte ci plateau bi ma toog nii ndax maa ngi bokk plateau ak samay papa ñu nuyu public bi teew euh, ak orchestre ci kaw man nag foog naa am naa histoire bu particulier ak Baobab. ndax maay maay doom bi njëkk a ñëw ci orchestre Baobab yàlla dogal ma am chance fekk fii ténor yëpp ah donc bi may ñëw fi laa fekk euh, chanteur yu mag yi ak ñoom ñëpp ma am chance tourner ak ñoom un peu dans le monde. est que paa bi fekkante ngeen fa. si sama papa def nañ cinq ans maak moom. Rudy Gomis Pape Bala Sidibé Pape Issa Soko ñoom ñëpp tourné naa maay doom bi njëkk a ñëw Baobab maa ñëw après sama rakk yi doon ñëw. donc loolu am naa chance fu ma toog di ko wax di ci sant yàlla nag parce que nag groupe la boo xam ne bu ci kanamee dinañ ci ñëw man dama ne woon sama yoon ndax suñu génération bi xam nga mbalax mi lañ gën a bëgg mu ngi am benn jour ma dem seetaani orchestre Baobab benn samedi comme jéewu ma ñuy jé fii ci cercle mess des officiers ma fekk ñu am manquant bu metti nag am chanteur yu manqué paa yi dañ ma séen rek na ma voilà yàllaa la feen bi lii ma jël leen fa ñaari moso ñu poñe ma na ma sa kër bàyyi la da ngay ñëw jeeg ba boobu ba léegi. ba tey c'était en 2011 eh, ma ne ah xaaral ma essayé rek mais bi ma ànd ñoom bitim réew dinaa ci ñëw ci kanam. waaw ci laa gëm groupe bi. dañuy wax comment noo ci li nga nekkoon ñëw ci sonorité afro-cubaine ànd ceeg paay ci kanam tuuti. mais groupe bi aussi euh, bu weesoo ñu toog ci plateau bi dans le public am na si ñoo xam ni. Euh, ñu ngi ci groupe bi ñoom euh, Papino Papino Koita sa doom la. ah euh, Papino Koité moom mi ngi ci vocal yi. bale Boléro René ñu koy wax Boléro moom guitare solo Wilfried Zinzou saxo ténor ak trombone ak Malick Sy moom it guitare waaye manager yi itam ah tout le monde est là. c'est la grande famille du Baobab Euh, Habib Mbaye euh, Badou Bey il est là Badou euh, ak ak Omar Sow on va aller regarder une vidéo xool junj nañ ko histoire bi jaar jaar y a une vidéo sur l'histoire du baobab c'est tout de suite 1970 la ñu taxawal groupe bile di orchestre Baobab ñu bëri nag ci ñoom jóge woon ca Star Bands bu orchestre bile di Miami bu Ibra Kassé groupe bi li ci gënoon a fës bokk na njaxas bu am ci anam bi ñuy woyee wala sax ci musique bi ñu mënoon cee nemmeeku ritm latin ay sonorité yu bàyyeekoo ci Afrique ay mélodie yoo xamante ni traditionnelle la naka noonu lu laale ci sol wala jazz ñoom ginnaaw Miami ñuy produire ca club Baobab doonoon ci jamono ab baalukaay boo xamante ni siiwoon na lool ci Ndakaaru Ousmane Diagne ab homme d'affaires ak Adrien Senghor nekkoon ministre ci jamonoy Léopold Sédar Senghor ñoom ñoo ko taxawaloon Balla Sidibé Baron Ndiaye Lay Mboup Lathiou Bengelloune Barthélémy Atisso Sidat Ly Medoune Diallo Ndiouga mi nga xam ne ci 79 la di bàyyi groupe bi Peter Udo Papa Ba Mapenda Seck Moussa Kanté moom tamit bàyyi groupe bi ci atum 1970 Issa Sissoko Rudy Gomis Thierno Kouaté Mountaga Kouaté Charly Ndiaye Omar Sow René Yahya Fall Abdoulaye Sissoko Alpha Dieng As Diouf ñii ca boobule ay star yu mag ñoo ci orchestre bi le ci atum 1978 Ibrahima Silla ci boobule jamono nekkoon ab producteur doon tout tànk bu xarañoon lool moo amal enregistrement bu njëkk fële ci studio Golden Baobab boobule tàng Francis sengor nekkoon doom ci ki fi jiite woon Sénégal di Léopold Sédar Senghor jamono boobu sax labelam mi ngi tuddoon Silar ginnaaw album boobu groupe bi daal di siiw lool rawatina ci Afrique de l'Ouest ginnaaw gi amal nañu lu tollook fukk juróom ci ay album ba 1985 concurrence daal di taxaw Sayel number one di ay groupe yoo xamante ni ay tur yu màgg itam ci wàllu musique ñoom ñoo fa nekkoon daal di am taxawaay bu am solo loolu nag ñu yokk ci ci atum 1979 ñoom club ba ñu nekkoon di fa jouer daal di tëj boole ceek beneen façon musique di am taxawaay bu am solo mu ji mbalax Youssou Ndour tàmbali di ràññeeku jafe-jafe yu ni mel di wey ba groupe bile daal di tas ci atum 1987 ci atum 2001 Nick Gold directeur bu label bile di World Circuit Record moom amoon yéene dajalewaat leen ginnaaw bi nga xamee ni amoon na yenn ci seen ay œuvre lu ni mel yu Ndour amoon ci taxawaay bu am solo bokk sax ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo dox ngir ñu gisaat waa orchestre Baobab bile naam ku ci nekk ci ñoom am na ci loo nekkoon waaye fexe nañu ba boolewaat bile groupe producteur bile daal di indiwaat album bile di Pirate Choice boobu njëkkoon a génn ci atum 1982 album bi wër rajo yi nga xamante ne daanaka ñoo nekk ci àdduna wargal këpp lii moo yëkkatiwaat groupe bile di orchestra Baobab ñoom sax ñu daal di tàmbali ab tournée internationale ci atum 2002 spécialiste in all styles nekk premier album boo xamante ne moom la ñu teg ginnaaw seenub séparation lu ni mel Youssou Ndour itam dugaloon na ci loxoom ànd ci ak cubain bile di Ibrahim Ferrer moom bokkoon ci groupe bile di Bruna Vista Social Club ci atum 2007 album bile di Made in Dakar dajale ay titres yoo xamante ni ñoom defoon nañ ko bu njëkk mu amoon succès bu am solo ginnaaw loolu group bi entamé ab tournée tàmbale ko ca Paris le 10 novembre atum 2016 njàqare ak tiis dal ci seen kaw njuga Dieng nekkoon lead vocal bu orchestre bile daal di génn àddina ginnaaw gi ci lañu ñu andi album bile di tribute tu njuga Dieng ci atum 2017 février 2017 Medoune Diallo génn àddina file ci Ndakaaru caatum atum 2020 Bala Sidibé génn àddina moom itamit ca Caaroy Baobab groupe mag ak album yu bari te am solo saf mën a dem mbëngeen hommage à Laye Mboup orchestre Baobab guy gu rëy gi Sénégal àdduna jarul ñaawoo guy gi du daanu Mouhamadou Bamba ak yeneen ak yeneen ak yeneen bu ci nekk ak succès bu am solo boo xamante ni am na ko ci wàllu musique orchestre Baobab tey ñu bëri ci ñoom génn àddina waaye nag ñuy wéy di des ak njaboot njaboot goo xam ni lépp la ñuy bokk ñoom sax ci anam bi ñuy doxee bokk na ci ñi nga xam ni sax génn nañu àddina seeni njaboot ñuy am lu ñu leen di taxawoo ci koppar yi tukkee ci seeni tournée kàngam yi yóbbu turu Sénégal fu ne taxawal drapo Sénégal fu ne tey sargal leen

dégg naa ci njabootu sengoor euh, dugal seen loxo ci orchestre bi lu koy suuxat euh, à la fin des années soixante-dix est-ce que euh, Senghor loxoom mi ngi woon mi ngi doon bàyyi xel li ngeen doon def jamono jooju. jarbaatu Senghor bu ñu daan wax Adrien Senghor waaw moom ak ku ñuy wax Ousmane Diagne ñaari kilifa la ñu woon yu mag Ousmane Diagne benn société bu mag la yoroon bu ñu daan wax SOCECI Adrien Senghor nekkoon ministre. Mhm. léegi nag ñoom. ñoom ñoo amoon idée wu ne léegi dañuy ubbi benn boîte de nuit pour gan bu ñu ñëwee parce que xam nga festival mondial des arts nègres fii la am en 66. bi ñu fa amee beaucoup de gens sont venus à Dakar beaucoup d' artistes beaucoup de musiciens ay kii bon léegi ñoom xam naa loolu moo leen inspirer ñu ne léegi dañuy ubbi benn boîte de nuit pour léegi étranger bu ñëw ñu mun la recevoir foofu. Mm-hmm. nga mun a ñëw dëkk suñu culture gis musiciens yi. Mm-hmm. léegi nag ñoom seen bopp nag ñoo am xalaat que léegi nañ dem uti ay musiciens yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw di anime boîte bi. Mhm. Sidaat li nekkoon mag mag mu nekk fii doon jouer star band. Mhm. ci musiciens yi gënoon a màgg fii ci Sénégal la bokkoon. Mhm. Sidaat da daan jouer guitare basse da daan jouer guitare accompagne guitare guitare guitare guitare guitare solo quoi. bon c' était grand guitariste. après mu ñu am ku ñuy wax Baro Ndiaye moom it c' était un grand saxophoniste. ñaar ñooñu ñu ciblé leen. ne leen léegi ñun dañu bëgg a benn groupe bu baax. boo xam ne moom mooy ñëw di animer fii. ñoom ñu dal di dem nag star band parce que comme ni ko Yaxya waxee sànq Kassé. tous les musiciens à l'époque. Kassé foofu lañu daan évoluer. Miami moo fi nekkoon. Mhm. Ah, bon y avait le Superstar le euh, y avait le Guinea Jazz y avait euh, euh, Band. Mhm. mais Kassé moom benn place fixe la woon ñëpp fa daan daje tous les musiciens. ok léegi nag gars yi soxla nag. dem jëli Bala be jëli euh, Atisso jëli Rudy ñoom ñett ñoom dañ daan ànd am seen seen benn orchestre bu ndaw buñ daan jouer quoi xam nga léegi ñu jël leen ñoom trois ajouté si lat Latfi Bengelloune Medoune Diallo Ndiouga Dieng Laye Mboup Thione Seck Charlie Ndiaye man ñu ñun ñëpp ñu daldi ñu kii structuré nag affaire bi. Mm-hmm. parce que dañ ñu ay salaire. organiser affaire bi. waaw organiser ko. parce que loolu yombul woon euh, temps yooyu groupe bu organiser euh, salaire et cetera. Euh, benn kase pas évident kase rek moo ko fi daan def kase. Mhm. waaw moom boo ñëwee mu ne la booy temps dinaa la fay temps ne waaw mu fay la loolu nga joué bu ko neexee tamit mu ne la ah booy pareel jël naa keneen teg ko fi. lu ngeen doon ko waaye jamono jooju. ah pop pop pop loolu moom loolu moom kenn kenn ko sax wax. ça marchait bien quoi. bon ah waaw bien sûr parce que ñun. période boobu wuute na ak léegi léegi nit ñi xaalis lañu gis temps yooyu ceeb am na diwlin am na da nga daan da nga daan solu ba rafet yore yore xaalis. Mhm. xaalis bi ça circulait quoi. xam nga la <laughs> avait l'abondance boobu. mais musique bi ñun plaisir lañ ko doon defee. Mhm. plaisir lañ ko doon defee. léegi nag bi ñu recruter musiciens yooyu nag ñu dali leen andi euh, foofu a la rue Jules Ferry ci ci dancing bi. Mhm. léegi nag gars yi daal di ñëw nag daal ñoomi nag nekk ay musiciens yu xarañ. composé Lamine Gueye Sénégal sunu gaal jongoma del wax nijaay ay ay bés boo amee ay jaraaf am na am na yuñ ciy dégg ci kanam tuuti parce que même ñi nekkoon di way ñu bëri mhm. te nekkatuñ fii on va leur rendre hommage mhm. dans cette euh, dans émission mhm. avec euh, band bi toog ne euh, ñoom Coombaay parce que groupe bi ngeen di gis ne Coombaay hmm. mooy chef d'orchestre bi ñoom Biram Dieng ak Fatou Diop ñooy way hmm. am na ñeneen ñu am solo ñu nekk ci euh, ci biir te d'ailleurs comme tudd nga Balla Sidibé Rudy Gomis euh, ak euh, ak Juga hmm. parce que morceau bi ñu nar a njëkk a légende la ci waaw mu ngi waaw aywa mais entre parenthèse Coombaay Coo Thio mun naa wax ne dafa bokk Baobab parce que Thio def nañu enregistrement ak moom. Mhm. waaw def nañu enregistrement ak moom te complice la woon suñu complice la woon. Mhm. mook balaa boo leen daan gis dañuy mel ni ay morom balaa mag balaa balaa mun na ko jóor. Mhm. mais Thio ak balaa boo leen gisee addina bu tas la da ngay ree ba sonn. Thio il était suñu xarit la woon ñun ñëpp wax dëgg gis nga maa ngi ko fekk fële di ko dóor ay jéembe muy <laughs> c'est ça. alors groupe bi groupe bi nga xam ni moom moo nekk ne. dafa euh, sës ñun rek. ça ça s'appelle euh, l'African Star Orchestra. moom euh, Thio Mbaye ak ñi mu mhm. ñu jam ñu Colette. waaw de l'orchestre Baobab. Mhm. ngeen toog déglu. Mhm. ngeen wax ñu. macha allah bismillah. merci euh, Biram Fatou ak Saliou ñoom ñooy waykatu band bi ngeen gis euh, African Star Orchestra euh, ñu ciy félicité Pape Cissé mi ko sancoon au départ il du monde dans Ibou Cissé Laylo mais jamono ji Thio Mbaye ak ñi mu àndal Thierno Alain saxophoniste camerounais établi à Dakar di ko xam ni yéen a ngi koy gis le saxophoniste attitré du Super Étoile de de léeg-léeg tamit euh, boo génnee Ndakaaru guddi dajeek moom ak ay gaam la première fois qu'il est venu mm-hmm. ñun ñoo defoon doo tourner Bruxelles ak Youssou dem Bercy tout à fait c'est la première fois ñu rencontré ak ñoom Obama et tout ça là donc moom euh, sama xarit la sama rakk la sama lépp la uh-huh. euh, et je l'estime beaucoup parce que a très bon son pour rendre hommage oui oui oui c'était pour rendre hommage à Rudy Ndiouga ak euh, Bala. Colette nag c' est une composition de Barthélemy Atisso. Mhm. c' est sa femme qui s' appelle Colette du du Baobab. waaw avocat. voilà waaw hmm? avocat. voilà euh, bi mu jógee ba ba dellu Togo sax commencé waat na defaat tuuti métier avocat laata muy génn àdduna. bien sûr moom Atisso moom y aura un témoignage sur lui tout à l'heure hmm. mais euh, on va s'arrêter sur Bala Sidibé. ah dama leen di proposer témoignage soxna. d'accord. Fatou Diop soxna Bala Sidibé Muntaga euh, bu ñu déggoo kàddoom xam ni famille yéen ñëpp ko ñu def témoignage ci yéen di leen tuddu Fatou Diop moo xam nga ñun suñu soxna yi ñun dañ nekkandoog ñoom xale. alhamdulilah. একটু মশলা আলহামদুলিল্লাহ alhamdulilah ñoom dañuy gunge quoi instant boobu ñun yoruñu dara ñi ñuy muñal di ànd ak ñun gëm ñu nag parce que période boobu musicien kenn xoolu ko dañ jàppoon musicien yi rek ay n'importe quoi mais ñun ñu am suñu jom nag ñun ñu am suñu jom di solu ba set di sangu ba set di solu mel ni comme ñëpp sama copain yi ñii ay bureaucrate la ñu ñii ay professeur la ñuy mais man baobab musicien baobab la mais fu ñu sole costume ma sol costume fu ñu demee ci jàkka ja ñu fekk ma ca jàkka ja fu ñu takkee soxna ma takk soxna ñun suñu jabar yi ñun dañ leen di wax kàcc ngaalaama parce que ñoom les moments de galère dañ ko ànd ak ñun bañ ba ni ñu yàlla ubilee buntu wërsëg ba tey jii alhamdulillahi rabbil alamin Fatou Diop témoignage bu ñu jox ci balaa lu ndaw la sax parce balaa c'était te rassembleur balaa ku mënoon a muñ la balaa moo daan dox lépp balaa société société la daan dem bu ñu joué la semaine semaine lañ ñu daan fay bu ñu joué la semaine mu dem société ñu jox ko xaalisu groupe bi ku ci nekk dina la jox sa xaalis ba ni ni ñu demee ba jóge nag euh, à la rue ñëw au ngalam astafurla ñëw jandeer jandeer nag ñun boobu dañu am suñu autonomie nag génn nañ baobab léegi nag orchestre Baobab dañu am seen propre instrument léegi nag ñun ñu structuré suñu bopp léegi Issa c' le chef d' orchestre Bala Sidibé non Ndiouga Dieng était le trésorier hmm? balaa nag moom c' était moo doon suñu doyen. Mhm. moo tax jabaram tey témoignage bi mu wax ci moom man mun naa dëggal ne balaa tey yàlla na ko yàlla xaraajal yal na ko yàlla yaram. amiin amiin euh, ma fàttali ni ci sunu. Euh, café musique gu tey bi euh, ñi ngi ak yeneen invité yu ràññee ko ti musique Guissé Pène ou euh, Michael Souma on va leur donner la parole ah ak Michael ñu ngi leen di gërëm ci seen ci seen teewaay un mot sur Baobab donc maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu aussi toogaay bi fii xam ni toogaay bu légitime la parce que man dama am deux histoires particulières ak euh, le baobab benn bi c'est avec Thierno Kouaté parce que si aujourd'hui ñu ngi dégg qui se peint dans la musique Thierno Kouaté mii moom moo ci dugal boobu j'étais en France je jouais au football nekkoon en troisième division di waaj yeeg deuxième division mun ma eh sa waay tu es le frère à Omar Pène on a un orchestre tu viens chanter noonu la ma jëlee ñu nekk ci groupe bi ma nekk euh, lead vocal bi et c'est moom ma dugal ci culture ba tey ñu naan gisee pen dans la musique mm. la seconde histoire c'est une histoire nag particulière ak le Baobab de Dakar euh, Baobab c'est le premier groupe sénégalais bu jógee fii dem tëgg ji en Europe en 78 bi ñu dikkee j'étais un jeune de 18 ans 19 ans mais maa leen doon chaperonné pourquoi parce que j'avais mon cousin Ndiouga qui était dans le Baobab ñu war a jouer benn soirée ci Pelem gare de Saint-Charles ak beneen soirée à Beauchamp may ànd ak ñoom di leen chaperonné ba bi njuga di dem ni ma léegi dama bëgg il faut ma yóbbaale ñaari oto ma ànd ak moom mu ñëw fa benn 304 je ne sais pas si les jeunes se souviennent de de cette de, de, de cette voiture là benn 304 ak benn 504 mbaar ñuy ànd mbokk ma di leen chaperonné pendant tout leur voyage et quelque temps après je crois si ce le number one je crois que ça doit être le baobab ñoom ñaar ñii parce que s'orienté wuñu c'était en 78 ci la ñu enregistré aussi les deux albums baobab à Paris ou il si avait Sibam et cetera et mm. donc c'est un plaisir ma toog fii euh, xam ni li nga xamante ni alors moo nekkoon seen euh, succès à l'époque c'était incommensurable c'est-à-dire nit mënu ko woon a. natt ça fii c'est des c'est des c'est des grands messieurs que j'ai ñoom ñëpp fréquenté na leen et vraiment chapeau le gars de maintenir encore le flambeau et j'espère que les enfants aussi vont reprendre ce flambeau là mm. Michael voilà merci euh, maa ngi leen di euh, participer ci émission bu mag bi production bu mag bi ak euh, Pape Cissé Donc euh, remercier Pape Cissé pour cette euh, grande production euh, dans laquelle on rend hommage aujourd'hui à ces monuments, à ces légendes de la musique, euh, n'est-ce pas, au Sénégal. remercier encore une fois Pape Cissé pour avoir créé, n'est-ce pas, ce big band. donc les plus grands succès de la musique africaine. Donc je veux dire qu'aujourd'hui, Euh, képp ki musicien foo munti jóge si àdduna si soo ñëwee fii Sénégal orchestre bi mën a la je pense que c'est une très bonne chose d'avoir un groupe de ce genre n'est-ce pas dans une ville comme le Sénégal le Sénégal qui a toujours été la plaque tournante de la musique mondiale voyez-vous et donc pour revenir un peu à au bon moi j'ai connu l'orchestre Baobab j'étais encore très jeune et c'est mon grand frère feu André Lo euh, qui pour la première Euh, de l'orchestre Baobab. J'étais encore très très jeune, voyez Et c'est la première fois que j'ai rencontré en fait euh, ces monuments de la musique. Hein. Et Dieu a fait que euh, par la suite, ben, j'ai, euh, je suis dans les médias. Donc euh, j'ai eu à travailler dans les médias. Et j'ai eu à faire la promotion en fait de ce groupe-là. Et donc du coup, euh, au-delà, n'est-ce pas, du professionnel de l'audiovisuel que je suis, je pense que c'est plus des relations de fraternité mu nekkoon ci suñu diggante moo nekk suñu diggante ba léegi d'ailleurs euh, donc encore une fois revenir sur ce qu'on appelle la reconnaissance et je pense que li ñu def fii tey ce qu'on fait aujourd'hui ici au Thiossane je pense que c'est très très très important il est important aujourd'hui de rendre hommage de son vivant n'est-ce pas à tous ces grands noms de la musique à tous ces grands noms qui ont marqué la musique sénégalaise Euh, nelaw ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy honorer je pense que aujourd'hui c'est important d'honorer encore une fois tous ces noms qui ont marqué la musique sénégalaise de leur vivant bon c'est vrai que am na ñoo xam ne euh, dem nañu mais ñi fi nekk tey je pense que war nañ leen sargal honorer leen à la limite créer un musée un musée qui va donc euh, euh, réunir n'est-ce pas euh, tout ce qui est musique sénégalaise aujourd'hui Euh, parce que euh, euh, euh, aujourd'hui, on a un grenier musical, mais qui est tellement riche. En partant de la musique traditionnelle sénégalaise, la musique classique sénégalaise, ñoom Samba Diabaré Samb, euh, ñoom Boukounta Ndiaye et tant et d'autres. La nouvelle génération war na leen xam. Donc créer un musée boo xam ne ça va réunir, n'est-ce pas, toutes ces sommités-là de la musique. Comme ça, ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey la nouvelle génération mun a roy ci ñoom. Je pense que c'est important. En tout cas, bravo à Pape Cissé, bravo à la TFM. Bravo également euh, Ndour, hein, qui a été un élément déclencheur pour le retour sur la scène internationale de l'orchestre Baobab à travers Nick Gold. En tout cas, bravo, c'est un plaisir aujourd'hui d'être là et, de savoir aujourd'hui que nous rendons hommage, n'est-ce pas, à des monuments, à des symboles. Merci. Merci euh, merci euh, euh la série Hommage, parce que c'est une émission Hommage. Euh, on parle de, de Ndiouga di papa yi Alpha Dieng mi nga xam ne léegi ci chanteur groupe bi la bokk. Mhm. Euh, témoignage ay soxnaam ñu njëkkee euh, Awa Diaw fay mooy yaayu. Euh, yaayu Alpha ak Momo Dieng. ñu déglu. ñu ngénte Alpha Dieng mi ànd ak tey jii ñoom di way la fekk bari ñi ñoo soog ma xam. daaw ñu am ci dëkk bi un mois yu mat wala deux mois dem tukki te bu ñu tukkee macha allah nañ eh, yàgg ci àll bi. ñoom dañoo mës a déggoo seen soxna yi mës déggoo ñoom bu ñu masaan di ñëw ñun soxna yi ñun ñëpp dañuy dem jë dañuy dem teeru leen fa ñuy nekk toog di waxtaan lu yàgg euh, ñoom ñuy doog a ñëw bu ñu ñëwee ñu teeru leen ci jàmm affaire bi neex ñuy dund lu neex wax fa dëgg yàlla ñëpp benn lañu woon ñëpp ay xarit lañu woon. lañ jugee siisul soxorul naqarewul deret xuloowul xeexul. lu mu yëpp ak njabootam rek lay seet bu ñëwee tubaar fakal la fa mu man di dem bu ñëwee li mu am daf koy sédd la ku ne jël sa wàlla masul lekk dara bàyyi njabootam duy jabaram duy doomam mu dund nag dund gu neex foo ko fekk mi ngi wàcce kaamil foo ko fekk euh, fajar mu yee yee ma yee sama njaboot yëpp ñuy julli ba ñuy samay dëkkandoo sax bu ñuy yee ñoom dañuy yeewuwaale ñoom tamit buy tari di tari ca kaw neen bi dañ daan wax sax moom buy tari ñoom duñu bëgg sax mu noppi xale yëpp miin nañu loolu Alla Ndiouga entrepreneur la woon fu mu dem ñu jël ko mu du jël ko ci mairie bi muy ànd ak Abdou Diouf fu ne balee Abdou Diouf a wax Alla Ndiougaay wax ba pare way ba pare mu soog a wax ci ñëpp nag député yeeg ministre yeeg ñëpp booba nu danoo namm dara booba xam nu sax ndax baaw ba tëj ni wala tëjul macha allah di sol lu rafet muy dem umra di dama ko ñëw nun bi Ablaye Wade di yéegee fekke na ñoom Alla Ndiouga ñu ngi si seen i di dem Alla Ndiouga xamul dara Sénégal ci ci ci ci bi Ablaye Wade di yéegee xamu ci dara te booba wàcce nañu ko ci meer bar ñi moom la ñu jëkk a wàcce ci mairie Bargny mais yëgunu ko sax yàlla mel ni rek dafa indi bal bi jël baaw baab rek ñuy dem rek di dem tournée rek di dem tournée kër gu mu tabax rek ki tournée la ko tabax kon nag ñun woon dara loolu yëgunu ci dara lañ ci yëgul macha allah wax dëgg yàlla dara ñu ci yëgul. dañ daan ñëw sama kër ñoom ñëpp fa la ñuy reere mu mm, kii Mountaga Kouaté coon booba takkagul soxna sama kër lay nekk ñu reer moom ma penda Mountaga ñoom ñëpp bu ñu paree ànd na alaaj njugo dem joué ji xam nga ne yooyu artiste yi daawuñu dawante ñoom ñëpp ku ci nekk euh, artiste bu mag nga ñu bokk benn orchestre laa ñooñu lañ liñ def yombul de. waaw moom moo la yar mi ngi. sama tante Aïcha. moom mooy yaayu Pama Dieng yaayu Pama ak Mar Dieng bi ne. maa caméraman TFM. dafa a am doom man mi ci moom laa ne woon. ah bon sama tante. a lañ ko joxoon. ma ne woon ak sama tante fële ca ñaari tali. yi mm-hmm. papa jënd kër benn tali ma àndaat ak moom. Mm-hmm. paa bi jëndaat kër yoof ma àndaat ak moom. Mm-hmm. ni ma ko xamee ñoom Mar Dieng xamee wuñ ko noonu. ndeysaan donc sam papa noonu la defoon njabootam doo xàmmee ku ñu jur moom moo jëg mi ay sengom moo ko yar kon ñu ngi leen di nuyu di ñaan yàlla ak Fat jaañ dafa sori mm-hmm. mooy ñetteel bi mu ngi mbuur mm-hmm. yàlla na yàlla guddal seen fan amiin waaye daal suñu pàpp yi tax na ñun ñu bëgg métier mi sama yaay mas na wax benn rax nee na ma sa papa bu yàqoon musique bi day metti rek waaye du ngeen way mm-hmm. bu ko yàqoon day metti rek waaye damay reyante gen ba du ngeen def musique dañuy dañuy dañuy mandargal Euh, hommage bi ñu koy defal moom Alpha Dieng ànd ak euh, euh, sunu mbokk African Star Orchestra bul ma miin sànq bi ñu dégg interview yi moom la ñu introduire ñaari soxna yi bi doon wax. waaw bul ma miin ànd ceeg orchestra African Star Orchestra Thio ak ñi mu àndal Saliou Fatou ak Biram ci ci way bisimilah. alfa kul ma miin ba Fatima kon mu ñaaw jëg kul ma miinoo lay lay la la lay lay la la kul ma miin ba Fatima sekki njaay ak laatu maal kul ma miin ay sa kul ma miin yow kul ma miin ba Fatima kon mu ñaaw kul ma miinoo lay lay la la lay lay la la kul ma miin ba Fatima kon mu ñaaw sekki njaay ak laatu maal soo ñëwul mu ñaaw sofi boo ñëwul mu ñaaw bokkam mu ñaaw mu neex sànne ne aram fa xabalam du man yaa ma neex mani boo ñëwul mu ñaaw yaayu ame ngi lor day ndaw yaa ma neex lay lay la boo ñëwul mu ñaaw sama ni bul ma miinoo ma miin ba Fatima ko si del ma maa jigéen bul ma miin yow bul ma miin Yaxya bul ma miin ba Fatima bul mu ñaaw bul ma miin non bul ma miin bul ma miin ba Fatima kon mu ñaaw bul ma miin ba Fatima kon mu ñaaw bul ma miin ba Fatima ma miin bul ma miin ba fàtte maa ko soo seetlee ma maa jigéen bul ma miin yow bul ma miin bul ma miin ba fàtte maa ko xarul la ba dee na jaa bul ma miin yaay alfa jën bul ma miin bul ma miin ba fàtte maa ko ati soo rakkaaju naa man rakkaaju naa bul ma miin ba fàtte maa ko Célestine rakkaaju nga man rakkaaju naa African Star euh, Orchestra Mountaga <laughs> ah bul ma min bi kay moom fatt taraj la def neex na de <laughs> c'est très bon Babacar oui euh, macha allah xam nga orchestra Baba musique am dafa jekk ci simple te simpleul waaye ñi ne ci kaw chaîne scène bi ay professionnel lañ maa ngi leen di nuyu di nuyu sama frère Birame Dieng ak sama sœur ak sama frère bi mu dendeel Birame ñoo bokk bàyyi maak moom defandoo lu bari ensemble bari na album yoo xam ne marqué e Sénégal maag moom ñoo ko def maa ngi nuyu Xaadim Mbaye di nuyu sama papa Thio Mbaye as maa ngi lay nuyu Alain bu ma limee jum amadi ndaanaan yi ñeen ci kaw seen bi ñi mën nañu mën nañoo jouer lu ne di remercier Pape Cissé parce que lii dafay dafay dundal musique sénégalaise waaye nag Thio fu mu ne foofu war naa mën a am musique bu ma bi neex na lool macha allah jërë ngeen jëf jërëjëf Alpha jërëjëf euh, orchestre euh, bi ñu àndal ci tey euh, di jouer ay morceaux baobab l'African Star Orchestra dañu jóge Sénégal tuuti en restant en Afrique parler toujours de l'histoire baobab ba Togo ak Barthélemy Atisso mi ngi xam ni kenn lawoon ci yéen soxnaam sénégalaise la woon noonu Euh, Barthélemy Atisso ak euh, soxnaam si nga xam ni moom mooy euh, Marème Ndiaye Ly seq na waxtaan ak ñun itam ci spécial hommage orchestre Baobab boo mujj na boo waxee Atisso sax ñu ne yaayam a ngi nii tu donc am na yu bari yoo xamante ni dama ko si génne mhm. comme am na yu bari yoo xamante ni si dama ko siy dugal li ma koy dugal nag c'est du bon côté et pas le côté négatif on s'entendait très bien mhm. dem na ba bon ànd boo gis tàggoo dafay am euh, yàlla wedd suñu diggante kuloo wu ñu xeexuñu mais y avait un problème de religion dem na ba am doom tuddee ma ko et boo ba ba juste mi ngi génn àdduna foofu ca Togo ca dëkk bi mu cosaanoo atum 2021 taxu ko yàgg lool kon euh, guitariste la woon Yaxya guitariste comme comme yow c'est un brillant instrumentiste exceptionnel dafa am benn euh, xel bu vif par rapport à ces ces ces son système de jouer là dafa boole woon euh, un peu de jazz mais sa sensibilité personnelle bi nga xam ne moom la sensibilité africaine bi muy li muy sentir en tant qu'africain moom la daan exprimer wu exprimer ci instrument de telle sorte que il est très difficile de copier Barthélemy. Tu vas copier Barthélemy, mais c'est pas Barthélemy parce que au moment où il jouait son jeu là boobu li muy sentir yow mënoo ko sentir tu ne feras que copier comme ça superficiellement Barthélemy c'est franchement c'est c'est un très bon instrumentiste. voilà loolu loolu daal mën naa ko témoigner. Mm-hmm. parce que moi je suis guitariste comme lui. ensuite au-delà de ça tu sais euh, yàlla dafa def au Sénégal je dis bien au Sénégal beaucoup de gens pensent que en faisant de la musique tu vas te prostituer wala tu es un voyou wala mel noonu or le temps nous a montré que le contraire moo existé contraire moo am aujourd'hui regarde-moi sur cette scène là il y que des jeunes qui sont très brillants en en musique qui peuvent exécuter n'importe quelle musique donc c'est pas des voyous ça c'est pas des vauriens ñun ñi nu ne sommes pas des des des des des, des gens qui qui qui ont qui se sont prostitués qui ont fait n'importe quoi dans la vie on s'est conservé on a étudié et puis au-delà de ça ce que les gens pensent dañu defe ne musique yëfi caaxaan la c'est pas du caaxaan musique c'est une c'est scientifique c'est des mathématiques Parce que quand tu viens dans un studio ou bien dans, quand tu fais de la musique, on va te demander de faire des augmentés, quinte, cinquième, augmenté, sixième, septième. Ça, c'est des mathématiques. Ce n'est pas, pas donné à n'importe bu ñu yaakaar ne ñun def ay dof la ñu rek di kii dañuy dañale déedéet musique boo koy jàng da ngay jàng da ngay am xel am moyen bu rëy jàng ay mathématiques la c'est pas des c'est pas donné à n'importe ku dem jàng nii rek musique nii rek doo dem fenn du sori et euh, ça ngay conseillé booy yi xale yi dem conservatoire ñun on a dem euh, jàngi. jàng c'est-à-dire au de la de ça sax xam nga xale yi ñii par exemple ce qu'ils ont fait là c'est exceptionnel léegi la soog a am nii mais am na ñi nga xam ne waroon nañ ko def parce que ñun je je l'ai dit tantôt c'est malheureux que le Sénégal risque de perdre toute sa culture musicale dañ ñu seetaan ñun mag ñi. ñun ñi nga xam ne ñoo sos presque ce que c'est que la la la l'âme même de la musique fii ci Sénégal ci ñun la jógee li ñu ci def fii kenn defu ko ñu ñuy seetaan ñuy dee kenn par kenn kenn par kenn xoolal baaw Baobab ñaata ñoo fa des kenn desu fa sol compté ay ci Baobab plus de quinze personnes yi nga fa ay ñetti nit ñoo fi des léegi fii mais jusqu'à quand te boobu suñ ñu bàyyi ba ñun ñëpp ñu dee kan mooy jël relève heureusement yàlla def na suñu doom yii ça ce sont nos enfants. tout à fait Papineau euh, René. Malick Malick euh, Wilfried qui n'est pas encore la ñii ce sont nos enfants à qui on a réinjecté nous notre savoir li tax li ko li tax li mu am euh, li ñu ci yàlla dim defal sax dafa extraordinaire parce que avant nit ñi di ñii di dem. lay fekk ñoom alpha ñii ñi ñëpp di dugg intégré ci biir kii ñoom kenn ku ci nekk uuf kenn boot boot ko baa mu uuf ko di ko wan yoon wi ba bi mu fi jógee ñun ñi ngi sant yàlla sentiru ñu ne dem nañu parce que sur le plan professionnel ñoom ñi ngi fi ba tey. Mm-hmm. voilà loolu laa la bëggoon wax. le cri am na am na solo jërëjëf jërëjëf euh, bu ñu jógee ci hommage à Barthélemy Atisso bokkoon ci sos sos Baobab mën nañoo xuus rek un ci ci Thione Seck aussi euh, Thione Seck c'est aussi le Baobab euh, ci benn instant ci carrière am via Laye Mboup xëy na voilà. la Thione Seck Laye Mboup moo ko moo ko indi. waaw effectivement moo ko andi. mais fekkoon na Thione am talaam ba pare. Mhm. xam nga xam nga ñun nit ñu daan forme ci kasak ngay formé woo kasak dangay ngay nekk njulli ñu lay kasagal si ngay jànge tëgg si ngay jànge kasak loolu noonu ngay commencé dugg ci aar bi mhm. bon coon balaago dafa mënoon a kasat kasak léegi kasak yooyu mu doon def noonu ak di woy ci mbappateek yooyu si la ko laay mbu gisee dal di ko jël def ko doomam di ànd ak moom léegi nag laay mbuub à ses heures perdues par exemple bu ñëwul da naan coon ñëwul nga jàppale ma c'est que bien avant coon nag y avait Doute Seck quand même sek du sec la jëloon la jëkkoon a mais comme que du sec moom il était un peu turbulent mu changé ko jël coon sec teg ko fa. y un témoignage son frère Mapenda mi ngi France. waaw on regarde son témoignage mm. on revient. Bamba, bamba, bamba. man fi ma tuddalee orchestre Baobab mooy que damay fàttaliku premier jour bi ma coon njëkkee yóbbu Baobab ma dem toog seetaan la ñuy joué bis boobu mooy njëkk a ñëw ci suma esprit. Thione nekkoon koo xam ni doomi géwél la doonoon woykat woy fi def fi wax fi lu ñëpp teg seen bët et mu nekkoon koo xam ni xam nga famille bu nekk yàlla day xool ka ko neex mën a doon taaw mën a doon caat mën na doon ki nekk ci digg bi mu teg jël ay garaatam teg ko ci mbaggam dafa coon du taaw mais ñu bari dañ foog ni mooy taaw mais moom la yàlla jaarale ci ñun ci si wàllu liggéey bi ñu nekk moom la ci suñu borom njëkk wane à travers moom nag moo ñu tette ñun ànd ñun doon le capitaine du bateau de la famille de El Hadj Cheikh Seck suñu borom moo dogaloon loolu ci moom donc euh, il était le capitaine donc euh, voilà te ñu nag yóbbuñu fépp surtout man. fu mu mas am contrat turam day nekk ci kaw sama tur ci suuf donc loolu sax moom ma dem ba yóbbu ma ci orchestre Baobab mu dem ma féetale ma orchestre Baobab waaw sama relation ak ñoom rafet rek pas plus euh, pas plus tard que fële Paris rek am na concert bu ñu fa joué mais tey Mountaga laa fa fekk ak grand Thierno Konaté ñooñu nga xam ni tey. ñoo ñi nga xam ni euh, ñoo des ci membre Baobab keroog dañ ma invité ma yéeg ak sama rak Alpha ak doomu Moutaga bi ñu vraiment ñu def benn jam session bu rafet gars yi bëgg public bi kontaan donc euh, membre yi fi nekk moom macha allah Moutaga Kouaté su ma mag la moom mooy xaritu coon moo ma yar mook coon ndeysaan su may xool groupe bi nag pratiquement moom kenn moo fi des comme membre yi nekkoon ci baaw ba le reste yëpp ah suñu borom def na li ko neex ñu ñaanal leen suñu borom xare leen àjjana yi si moom ñañ fa fekk ak ña fa fekk di ko ñaanal bépp way daw. Euh, ma pend par exemple. Euh, noo ko noo ko gisee il a un peu pris de vous aussi hein benn instant ci. Euh, ndorteelu carrière am moom Mapenda Raku Thion. d' abord avant avant le Baobab on a ensemble ak kase te bi ma Kassé di soxla en tant que saxophoniste Thion lu yónni mu ñëw Gueule Tapée fekk si ma fa ma ñëw ci la commencé Miami ak moom bi muy woy Chéri Coco après ci la demee Papa Djibi ñëw donc c' une longue histoire bu dul loolu sax. dañu màggandoo à la Gueule Tapée avec le vieux Samba Ngom papi Assane Ngom euh, ba kii bàyyi Eumeu Sène donc c'est une très longue histoire mm-hmm. depuis l'enfance ba du ñu toll ni yàlla def mu wëlbatiku baobab ñëw mu nekk fa xarit mu Muntaga nekk doomu ndeyam ba ñu ko sax ci biir sëy mm-hmm. donc euh, ñun ñëpp ñun ñëpp dafa am lu ñu boole au départ donc loolu mooy loolu moo indi euh, benn familiarité suñu biir ba nga xam ne lu ku ci nekk rek am nga am nga benn am na euh, am na trace boo am si suñu diggante loo xam ne li yàgg nañu nekk hmm. comme ni ko yaxee waxee woon mosuñu am problème kii dafay nekk fii kii nekk fi mais dañu daan daje nekk ay xarit amuloon concurrence amul bañante amul dara am na am na du Thione Seck dans bu ñu joué l'African Star Orchestra euh, ñoom Biram ak euh, Fatou ak euh, Saliou Ndeleng Ndeleng aywa on le jam yëngal ñun njële njële saa ni naajoo yaa ñu tee nelaw nangu turi mooy yaayu bindu yaa ñu yëngal ñun njële njële saa ni naajoo yaa ñu tee nelaw Emily Artiso Fatou Niang sa yaay yaa ñu yëngal ñun njële njële saa ni naajoo yaa ñu tee nelaw nangu turi mooy yaayu bindu yaayu Roqaya ndeleng ndeleng sangene ajo yaa ma tenelo Fatou Diallo mooy Serigne Issa Sissoko Goré ndeleng ndeleng sangene ajo yaa ma tenelo Senghor mooy yaayu Ndoulaye yaa nu yëngal ñun ndeleng ndeleng sangene ajo yaa ma tenelo Senghor yëngal ñun. ndeleng ndeleng ne nga joo yaa ñu tee ne la. yaay ami gi mooy yaayu Isa yaa ñu tee ne la. ndeleng ndeleng sànni ne nga joo yaa ñu tee ne la. tey saw bulo mooy yaayu Mariam. siri Cerno Gore. ndeleng ndeleng sànni ne nga joo yaa ñu tee ne way naa ni gi mooy sëriñ Nicole yaa ñu yëngal ñun. ndeleng ndeleng. Maria Maria si may si biig may si biige Maria ajab naa la nga den doon ga dem man way naa ngi coom siiri gi nee ba wuyo Fatou Gay yaa nu tee nelaw ndeleng ndeleng saa nene kaa nu tee les gars euh, African Star Orchestra euh, Moussa euh, Moussa Sissoko alors. Moussa. dégg yàlla mhm. bien waaw comme ko Alpha waxee jaar na yoon waaw ah. jaar na <laughs> ah, bi mooy morceau bi li koy jeexal. mooy coombaay mooy jeexal morceau bi. ñu joué joué ba ne coombaay. mooy jeexal morceau bi loolu secret nekk ci biir morceau bi. ah bon biram ah, <laughs> mais coo coo coo coo foog ñu jox ko jox ko parole tuuti un euh, sa sa sa sa sa diggante ak waa Baobab coombaay. waaw sama diggante ak Baobab. boo ma si laajee naa si sawar trop. parce que euh, man Baobab. dañ maa yar ndax gis nga Thierno mii bi may xale nekk Ballet d'Afrique noire boobu dëkk gu ma orchestré ma leen di fekk Méridien mu joué Teranga Express je crois ah, ah loolu yàgg na ma daan def bu ñu teelee ñëw léeg ma jël benn jéem jéembe ñëw di accompagner si morceau yi tuuti quoi ay salsa yooyu ak ñoom vieux fay li ma wax yàgg na ak grand Cheikh Faye yàlla na ko yàlla yërëm yàlla def ñu dem ba Thierno mi ñu dëkk ma dëkk mu dëkk Fass ma dëkk rue 22 prolongé kon li may wax yàgg na Muntaga di sama mag njuga papay sama doom ji di sama xarit bëgg ma lool li mu wax sànq ci Abdou Diouf li maire bi wax dëgg la booba temps meeting maa daan tulli paa bi mu daan woy meeting PS xam nga kon loolu moom dama say yàgg ba pare nag ñuy def seen album invité ma si waaw parce que boobu ni gold producteur bi sama xarit la xamante ne depuis ci commencement Cheikh Lo mhm. yaa ngi dégg bi leen Youssou comme ni ngay wax sànq bi Youssou récupéré affaire bi boole leen ak ni gold bi ba ñu defaraat defaat affaire bi. Mhm. war a def album bi man ci laa bokk presque. joué naa si morceau yu bare bare bare bare yàlla xam na ko. te Thierno mi ak Mountaga ñàkk kiñaan ñaan xam nga Mountaga mooy percussionniste bi. mais yaatal nañ ma ba ma joué si Tembal joué naa si Tumba joué naa ci Sabar. parce que ñoom boobu dañuy def dañuy dañuy yaatal dañuy def album international li xew léegi ni boobu xewul. ñii danoo mës a yaatal parce que ñoom bu ñu yaatal woon fii Sénégal du bari musicien ah. bu ñu waxante dëgg dañoo yaatal baobab man mun naa ni bokkoon naa baobab parce que ànd nañ tournée bu mag a mag a mag ñuy def seen premier partie boobu maa ngi joué Pape et Cheikh ak Omar Sow ñuy def ñoom seen premier partie ñoo doon bokk bus ñooy bokk hôtel ñooy bokk lépp ñuy grand yu baax kon mun naa ni man baobab bokk naa fa. jërëjëf waaw. buñ la naan da ngaa noo def. waaw waaw loolu de loolu de ah grand yaa ngi may yaa ngi may yaa ngi may weeje de xam nga déggu ma anglais. xamul ni mooy sibiru. damaa ñëw ñu dem tournée boobu temps sama sibiru day metti ma sibiru na fa nag sibiru bu metti ñu yóbbu mu hôpital biñ ma xoolee ba pare ñu ma da nga malaria man na pour man sida la wala. <laughs> grand baay booy man daal li sama problème yëpp mooy kan moo may tekki lan mooy malaria xam nga ay anglais la wax hospitalisé ma ci tàng tàng bi man man yàqu naa man moom c'est fini fii laay dee mais jéeni bi mu ñëwee jéeni moo ma sauvé moo doon tour malaise bi moo ñëw mën ko mais Diédi ils m'ont dit que j'ai le malaria c'est quoi mu ne ma non c'est c'est les moustiques de chez vous là <laughs> ma waxee la sax laa wér c'est le man pour man malaria mooy tey laay dee <laughs> mais gara gara yaa ngi fàttali lu yàgg non xam xam nga coo waaw ñun ñoo far waa ñoo far ñun ñoo far dañu mos a far dañu mos a ànd li ngay wax ñàkk kiñaan gi nekk ci ñun ci yow la nekk aussi parce que yow da nga ñëw wàcce sa bopp yaag balaa da ngeen meloon ni ay morom non balaa mu ko yàlla yërëm déggoo mu saan dama koy wax léegi bala dama nekkoon moroomam dama ko daan fekk ma pañe ko ne ko e génneel xaalis bi wala ma wax léegi mu na ma looy wax man ko sosol la bu ma lay sosol gars yi gëm indil bu ko dee mën waa baax ko bu la wax dara amul problème ñëw taxaw mayoon naa leen fi benn maye boo xam ne xam naa ne du ko mën a wax fii mais mujj gi moom noonu la may woowee dootuma woowee sama tur waaw xëcc leen dënd yi rek la ma doon woowee mais grand ñoom xam ne waaw kay nekkal ci jàmm ci woon nekkal pour ces pour ces pour ces pour mm. gërëm bu bu baax léegi euh, dañuy des ak yéen parce que ginnaaw ndeleng ndeleng ngeen def bu coon euh, presque liñ ciy teg ak loolu ñoo dend ndax euh, wax ngeen ko Laye Mboup moo indi coon biir Baobab. waaw c'est c'est le moment de de rendre hommage à à Ablaye euh, ñu njëkk déglu seedey mbokkam euh, mel ni jarbaatam la ci Autriche la nekk ca bitim réew ca Europe mu ngi wuyoo ci turu Modou Ngom ñu déglu ay seede